baata une campagne bu euh, dem nañu euh, suñu ngi bëgg yi coalition parce que def nañu plusieurs fois des porte à porte Ça nañu ba d'ailleurs may déplorer un incident grave pour xamné daf ñu coalition UCS que suñu ben volontaire pour euh, le ben le ben jeune Pastef Jàmm euh, te boo loolu mu ngi xewee jeudi Castor côté sapeur pompier donc ñu doom yóbbu woon ko hôpital la def yàlla jël bakkanam tey si guddi donc di di jaale yayam waxtaan les gars ak yaayam mu était dans un état totalement effondré gars nous bi aussi nous ngi fofu au niveau de la maison mortuaire donc di déplorer situation euh, toute que toute la lumière soit faite sur cette affaire Bon, affaire grave donc de toute façon gendarmerie saisir déjà déjà euh, la session de recherche de dossier et que nous déjà arrêté les nous donc nous avons ne parce que nous avons perdu dégg nga léegi lu leen def xeex def violence euh, pour que euh, yëpp yi euh, peut-être mu am jaxasoo nit ñi jaxase xel nit ñi loolu mooy seen stratégie donc bu si kenn ànd élection yi ñëpp xam nañu que Ziguinchor yàgg nañu organiser élection yu jaar si yoon man mi ñàkk naa si ay élection gagné naa fi élection donc par conséquent doo ñëw si benn dëkk rek nga ne yow rek yaa fi alors que démocratie c'est l'expression plurielle des opinions mais aussi euh, ku faut day dem wax am citoyen et puis élection et du Ce c'est pas la même nature donc il faut pas que euh, des gens autoproclamé wu vainqueurs kan vainqueur nga nga ne doo reconnaître résultat euh, loolu le tax prolonger campagne électorale bi continuer di gagner, nit ñi continuer di faire caravane de me douter si centre de vote pour jéem a perturber vote bi loolu du suñu cër du cëru kenn dañu war a nekk ay mag war a kilifa

ay jafé jafé mel non parce que suñu militant yi bëri ñoo xamné dañu bindi woon les primo-votants seen carte yi gënul eh, donc euh, ñu am aussi ñaaw njort ni que amna lu xew donc par conséquent euh, bu dee lolu c'est vraiment deug la vraiment dina don affaire bu grave bo xamné euh ñepp war nañ ko condamner opposition bi comme euh, majorité bi parce que euh, lieu de retirer carte d'électeur du nekkul ay këru responsable mais pour nous a retirer carte d'électeur yi si si si si kuréelu état bi la préfecture bi aussi ay commissariat de police je pense que lolu mo wara am euh lenen lépp du si am rek lo xamné nga xamné jaaru jaarul yoon très sincèrement ñun suñu nit yi ñu ngi continuer di wët seen carte gisaguñ ko ba léegi donc euh, day am yaakaar ni que bon état bi dina si tirer toutes les les conséquences euh, Boudé dee mi ngi daf ba léegi nañ ko signaler nit ñi euh, bu dee la aussi vraiment nañu situer les responsabilités pour que le mën jaar yoon parce que euh, démocratie dafa am ay règles te règles yooyu ñëpp ko war a respecter mooy nguur gi opposition bi je pense que nous si en tout cas Boudé dee loolu am na man koy condamner avec la dernière énergie